spécial promo waajal korité chez Ma Aïda cosmétique Yen ni beugone ci produit Ma Aide cosmétique yi te jotou len ci won am nouvelle bu neex la len indi Ma Aide cosmétique def len defal 15 jours de promo pour digen ni beug a respect ci la wax de Ma Aide cosmétique def len defal promotion ci les Awa Diamond bi weex tàll gam bi lay wax de def len ko wagnil ba 15000 francs dong Ma Aide cosmétique indil na en promotion carité urgence bi Fi ak fukki Carité fan ak moi karité urgence bi xam ko résoudre sen problème ou peau sèche fay hydrater sen peau dadi nandal sen yaram ba noy nep. nepp ah gommage yu ne laa baa ngook en promo Yen ni am yaram yu tiéré mba ay rew sonal Ma Ma ay de cosmétique indil na leen ay produits yu leni tagalé ak mom set ko wax promo waajal carité Bangok. ngook len gaaw ci numéro yi dadi passer sen commande ñu ci 77 820 40 40 ci 77 811 40 40 wala ngeen woote ci 77 070 10 10. may danga di suñu njëkke nag albatiku doon suñu peccoo ko ci kër gi moo tax moom laa xamal ne gis nga lii raam nag ci ñag bi la jëm te bu fa àggee am fa kër gis nga maguma yaatu bii ci kër gi buñ ko seetaanee mu toj kër gi rajaxe ko pourtant li ngay wax ni seetlu naa ko de waaye xam nga rek doo mën a wax benn xale bi wow na bët dangiral na day toog ak sama papa Moussa sax di ko piis wala mu koy ragaju seetlu naa ko de dafa fekk ni dama mënul wax rek xadi lay mënuma wax yow moom nii rek yéen da ngeen def ni kii kele ngaa toom bi muy def nii ci sam papa rek la ko jëmale yéen ngi nax seen bopp ki bàyyiwul sax sama jëkkër Ousin billaay man ba ma gisee ñoom ñaar ñu taxaw sax dama tiit après ma ne naa dem laaj Ousin lan lañ doon waxtaanee Ousin ne ma bés boo ma laajaatee lu mel ni nga ma sama kër ci biti. <laughs> ci laajte kese waaw mooy li ma la wax rek. mooy li ma la wax na kii jóg na ngir tas kër gi waaye yow nag xam nga lan moo ma soof man ci sa jëkkër réew na dangeeral na mën naa tontu yow sa jëkkër moom man tuuti te sax damaa doy ci moom waaye nag yaa ko ko may yow luy jiiñ njaag yow la yaa ko permettre mu yor ko jooju di la gëdd ka yuuxa ka def la la saf sans gel man defal rek moo ma war wallaay du ragal comme sama xas na ma jël may ma Ouzin te famille dañoo jegewoo donc mënuma lu dul defar mënuma def leneen. yow foofu nga taxawee daal du yaa Zeyda yow foofu nga taxawee waa baax na leen de xam naa ko gis nga yooyu muy def heure bu ci boolee xalil maman da koy lekk. loolu moom biti la fanaan kenn waxatul ay waxam waaye yow moom. fexeel ba rek bu ci bokk. Mhm. te du xam nga sa jëkkër. <laughs> du ci sonn man bu ma jéemee jéem mënuma gaynde bi laay dem boole ko moom mu génne ko ca xaj na fi moom xanaa lu mu yëgul. loolu de am na wala ngeen bàyyi ko bii baa rek. yow bii baa man kooku lu mu war a réglé wax ko mbéb mbéb ko ba yow bii baa lan la mën a lijjanti yow bàyyi ma. dëgg waxuloo sax ku ay suba xadi suba. suba bi suba suba daa mel ni bii maa moo aye de hmm. woor ba ngoon jot di lekk lekk bii baa <laughs> continuer woor a ma ko gënal du ma ko def ay osé waaye loolu moom dëgg la ndax bii passé ba mu toogee lekk bi sax dañ koo mujjee tuur ah du gis nga di xam laa bëgg jël dépense bi dem marché ndugg lu neex lu rafet bu ñëwee togg ceebu jën bu fatt taraj bu ñu dogoo nit ñi mën lekk añ ba suur ah loolu nga gis waaw xam ah, baax na amul problème <laughs> yaa sëy daa ngay jaay xaw ma loo jaay yow Maria hmm? soo gisee tax ma wala fii romb saal bi romb ëtt bi dugal la ba sëmb biir néeg mhm. li ma lay wax damaa ñor damaa bëgg nga déglu ma Maria je gis nga li nga nekkee ci kër gi mani manigance yi ngay def yépp man osé xam naa ko ma ne hmm. ci li nga nekk nga génn ci ndànk ndax baaxul paa bii nga jël tëg ko bët jël say AS teg fixé ko ko comme yow bañoo dara laa bëgg nga génn ci ba set wicc wicc wicc li tax ma woo la mais attends dafa mel ni ka foo de Maria bu ma tojal ah. magu jàmbur bu ma ko déggati xam laa bëgg nga xam gis naa say manigance et xam nga ne xam naa li nga nekkee man je crois bien que da ngay rêver ya, de ba jaawale wo ma ni man ni xana nak luma sik sik na naa fi bàyyi paabu dee bi yow tamit nag waa paabu dee bi ma tok di wax ak yow nga koy pa bu dé mais mom doo ko pa bu dé dama bëgg nga xam ni Maria do bandi Do woyu xamoo sax nu ñuy bandi Ma la gëna a bandi aller retour da soko ko sa rak ji di ma yaatu nga laaj ko kan moy oser yabu ma te yow doo ñëw ci kër gi bëgg maa yab te li ci gën a neex nag mooy gis nga sa yooyu li moom sama jëkkër nang ko ci génnee ba mu set sinon dinaa dem ba ci nafi mbay wax ko li fi nekkee yëpp mu génne la kër gi boo foo yàkkee wax ji sax man xanaa xamoon na mbay sama xarit la famille bii dama cee bokk avant yow ngay sëy si fii c'est la même famille deret bi daw ci ñoom mooy daw ci man mii donc wax ji nay rafet ba pare da nga umpale xanaa xamoo ba may ñëw fii na fi mbay moom envoyé passe ma indi fii wala yëgoo loolu. moo la envoyé benn fi nga jàpp baaxul. moo la envoyé passe tax na nga yaakaar ne nag fi mu toll nii su asamaan bi dee daanu nga capté ko redescend sur terre te li ma la wax na nga ko bàyyee xel bu baax a baax ci li nga nekk. génn ci ca ba muy teel mooy sa njëglaay. je crois bien que yeewoo goo ba tey da ngay nelaw de. baax na su ma yeewoo gis nga bu ñu àggee ca cappaandaw ja di nga xam ne yeewu naa te li ma lay wax xam nga ne xam naa lépp xam nga ne xam naa li ngay dawal ci biir kër gi. on verra on verra man de xam naa ne su ma tëddee damay nelaw na sama kuddu jaamu la ràcc. baax na Maria. kër goo xam ne njaaloo rek xoolal kii ñàkk jom kii moom mi di nelaw waaw man jëkkër laa am wala far yow ee mag sa garaaw waaye màggi na yow nga xamoo sa bopp yow yow màggi ku la fekk njolloor wii nga tëdd fii di di dàq ko di nelaw ni kuy xaar sa jabar la la lay wax mais yow da nga dof wala la dara jotuma lan ngay nelaw yow yow yow war ngaa tëdd fii di nelaw sa papa di toj saal bi yow isa xam nga ne yow sa papa caga la xam nga loolu eh tu exagères yaa wax gën a exagéré nga dañ la xool mais am na sa visible bu tëb. dara jotuma laa la wax. wa sa papa eh déglu ma wax la laa sa papa li mu nekkee na na réglé na nekk nit waaw. yow bi baa yow nit nga wala jësi. Eh, xeeru géej laa li ma lay wax xam naa ko bu baax am na xale bu jigéen bu mu dugal ci saal bi te war na ma ni tinga naan la koy waaja def. bu yow bu la rus sax mu jomb ñu ñun ay goro démb gis naa ko muy piis kumba mu ndaw. ci laa ko nar a rayee nag ndax kii du ñëw ba fii di eh, eh, bag bi bag bi du ko dagg bi baa mbépe génnal néeg bi. yow mën nga naan mbépe. jaar fi génn génn génn da may rey yow génn léegi kii da rey a métti yow yow da may rey yow yow da nga may rey yow da ngay dem sama loxo bi xoolal bëgguma yii de dégg boo ma gaañee di nga xam ñàkk jomb bëgg a dee wóor na ma ni li nga sàngu yëpp ñuux nga fa cere ak soom xam naa la wóoru gaale ngay wóor ku ñàkk jom nga waaye ba nga génn fi nga xam ni mag lii moo lay wan ne day day njaalo ci kër gi maa ngi ni ñu may bëgg a dóor fi yëgu ko mu ne ci lu ko neex Ma Aïda cosmétique moo leen doon may seen série awo bi